kenn suba si muy Famara Sané di docteur en sciences politiques ñu lay nuyu euh, faamara Sané. ah merci bonjour. di la dalal euh, ngay euh, docteur en sciences politiques comme ni ma ko waxee sànq doore waxtaan wi ak coup d'état baam ca Guinée ndax amoon na li nga xam ne maanaam jot nañ ne li mel dinañ ca àgg. oui bonjour donc maa ngi nuyu bépp auditeur réew mi FM. Mm. Euh, comme ni nga ko waxee rek gis gis nañu temps yi moom Afrique sous région bi dafa nekk ci situation trouble euh, parce que quelque part gis nañu non seulement am na guerre au Mali mais am na aussi euh, ay coup d'état yoo xam ne moom daa daa yëngatu dëkk yi. loolu donc loolu c' était prévisible ah c' prévisible parce que su suñu xoolee ci ginnaaw dégg nañu à moment donné ci conférence bu ñu organisé woon euh, Côte d'Ivoire. Mm. Euh, Alpha Condé dafa ne woon dafa plaidé woon pour que euh, ñu Afrique mun a am autonomie Afrique mun a am autonomie ak ñu def confiance aux investisseurs africains. Mm. donc xam nga place boobu Afrique ñun surtout ñu ci dëkk yoo xam ne ancienne colonie française parce que sunu partenaire privilégié numéro un mooy la France. Mm. donc xam nga discours boobu. français yi eh, te gis nañu avant moom eh, Idriss Déby moo commencé woon di wax affaire boobu de ñu coup de ñu coup d'état ko eh, également le président guinéen Condé moom moom tam mu ñëwaat ci ci kaddu yooyu gis nañu loo xam ne lu passé Guinée ci jour yi donc je pense que quelque part Afrique la France bi moom day day ut toujours di contrôler Afrique occidentale kon jàpp nga ne commencé euh, critiquer France rek euh, boo moyul sa chaise bi euh, du dëgër. boobu bokk na boobu bokk na vraiment bokk na ci ci facteur yoo xam ne euh, euh, koo xam ne président boo xam ne yaa ngi Afrique euh, part particulièrement ci ancienne colonie française mm-hmm. boo critiquer France boo defal attention di nga am problème mm-hmm. te la preuve c'est vérifié loolu moo tax vraiment ñun man je pense que boobu c'est un des facteurs boo xam ne bokk na ci renversement de ces différents présidents mm-hmm. tey nga lim ko dëkk yooyu nga xam ne jege nañu te am instabilité jamono ji ndax tey mën nañoo wax ne géopolitique sous régionale bi euh, dafa menacé oui réellement ju euh, euh, géopolitique sous-régionale bi dafa menacé te menace boobu euh, boobu daa commencé woon depuis la chute du mur de Berlin. Hmm. gis nañu Libéria moo commencé woon ci affaire bi moom mu contaminé Sierra Leone. Hmm. ensuite Guinée mu am ay yëngu-yëngu yoo xam ne temps yooyu ci période Lansana Conté. Hmm. Côte d'Ivoire mu jël relais bi. et aujourd'hui ñu ngi ci Mali Mali bon situation Mali moo gën a grave hmm. situation Mali bu ñu ko gérer woon day embraser toute la sous-région parce que moom euh, acteurs yi yoo xam ne ñu ngi ci Mali dañuy dépasser frontière Afrique occidentale hmm. loolu moo tax je pense que euh, dynamique bi bu ñu defal attention Afrique occidentale dana complètement déstabilisée hmm. tey euh, moom mii di Doumbouya nekk jamono ji ca bopp réew mi ne gouvernement d'union nationale lay taxawal te euh, du topp kenn euh, maanaam du am chasse aux sorcières te it moo ngi dalal xel ñi di partenaires rek investisseurs yi ndax discours boobu dina tax ba union wala union africaine wala CEDEAO wala communauté internationale taxawaay gi ñu am gi ñu liir ci seen communiqué ñu soppi ko waaw loolu ñu ngi koy xaar ñu ngi koy xaara ci ci jëf-jëfam donc euh, ah, lu mu wax bu ko appliqué parce que gis nañu coup d'état yu bëri loolu la ñuy wax mais après dañuy changer seen discours yi. Hmm. donc euh, mais ñu jëlee côté Union africaine CEDEAO ak euh, toutes les organisations sous-régionales. Hmm. je pense que ñoom habituellement comme lu ñuy def rek bu amee coup rek dañ koy condamné dañuy dañuy wax dañuy dañuy brandir menace économique sanction économique mais fait euh, euh, application boobu loolu mooy problème parce que euh, quelque part yeneen dëkk yi dañuy am interdépendance de telle sorte que ñun gis nañu Sénégal fii ak Condé bu mu fo front tëj frontières yi entre Sénégal et et la Guinée. Mm-hmm. am nañu ça créé nañu la montée des prix de certains produits particulièrement maraîchers ou bien des des fruits. Mm-hmm. donc loolu moo tax situation sanction économique surtout surtout dëkk yoo xam ne amuñu doole. Mhm. pour nga appliquer ko c'est c'est difficile. te mhm. o Union africaine ñoom ñëpp dañu xaar ci aide extérieure pour ñu mun a def yeneen intervention. Mhm. en partie tripatouillage li nga xam ne mooy constitution bi bokk na ci li ko fa mu muy fa Condé euh, ca Guinée tey jii ban jàngat la ci Sénégal ak yeneen dëkk yi nekk pays yi nekk ci franc maanaam zone francophone euh, am pour jàng tey jii ci li xew ca Guinée. waaw euh, actuellement euh, tripatouillage c'est-à-dire euh, ñëwaati ci constitution. di ko réviser waaw di ko jalgati. Ah. donc encore ensuite troisième mandat ñaari point yooyu ñoo nekk aujourd'hui ci difficulté yoo xam ne mu tax na bokk na ñoo xam loo xam ne ci lu freiner développement Afrique. Ah. particulièrement parce que président yi dañuy nekk foofu affaire bi neex dañuy agrippé léegi nag. ñi développé bureaucratie ak gabégie et également clientélisme te loolu euh, avancé wul dëkk bi. Mm-hmm. donc il va falloir que ñu ñu départir ci tripartillage bi peut-être que xaw ma naka la ñuy def ci ñu bind ci constitution bi que kenn warul laal troisième mandat c'est-à-dire kenn warul euh, quelle que soit la révision mm-hmm. le peuple a le droit vraiment di di manifester mais mais beneen bi c'est parce que tripartillage boobu mm-hmm. parce que benn objectif la ñu la ñu visé mooy lan mooy dañu bëgg a am troisième mandat. Mhm. te xam na bu ñu amee troisième mandat quatrième mandat day ñëw parce que dañuy ne euh, ñu ñu ci nouvelle constitution. Mhm. à telle enseigne que de révision à révision on se retrouve à deux trois quatre cinq même euh, cinq mandats. wax ci Gambie jamono ji ñoo ngi waajal ñoom i tey élection présidentielle ñetti weer rek a ci des tey ñuy dégg euh, bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar ni Barrow am na lu mu xaatim muy alliance ak ki nga xam ne moom mooy euh, Yaya Jammeh maanaam mi fi nekkoon euh, ñi farek Yaya Jammeh condition bi ñu posé mooy Yaya Jammeh mu dellu siwaat ci Gambie tey ji genre alliance yooyu le ndax mënul andi yeneen coow genre alliance yooyu bokk na ci ci ci tripartage constitution. Hmm. bokk nañu ci recherche euh, yoo xam ne président bu nekk da ngay def pour nga mën a yàgg ci pouvoir bi donc gis nañu lu ñu wax ci Yaya Jammeh lépp aujourd'hui euh, Gambien mënuñu comprendre euh, situation ba procès bu ñuy nekk bu ñuy enclenché. Hmm. le rapport même n'est pas déposé. Hmm. ñoom ñu ñu alors ceci veut dire que ñoom euh, xeex bu ñu mënoon contre Yaya Jammeh mm-hmm. c'est c'est politique mm-hmm. et aujourd'hui comme bugg nañu di yàgg ci di am beneen mandat loolu moo tax ñu te loolu day indi ay situation yoo xam ne situation yi compliquée parce que euh, ñoo xam ne ce sont les victimes mun nañu def ay manifestation manifestation yoo xam ne mun na de déraper mais comme aussi euh, mun na indi une certaine stabilité parce que Euh, dëkk yu mel noonu Afrique il faut que parfois aussi ñu accepter di di pardonner pour pouvoir évoluer vers autre chose mais mentalité yi ñoo war a évoluer ñëpp bàyyi troisième mandat ñëpp xam ne je ne suis pas indispensable bu ñu nekkee fii boo defee dara nga bàyyi keneen tam mu ñëw dafa expérience am. ndax war nañoo tiital Gambie ñoom it euh, nee nga ne euh, mën na doon source bi nga xam ne dina indi jàmm ca Gambie bi lépp accord waaye tey jii dafa mel ni président ci aar boppam ndax bu ne euh, ñetti weer fii ak ñetti weer euh, rapatrié yi nga xam ne dinañ leen indi ba mooyul vol yi dinañ ko arrêté ndax li ni mel euh, wonewul ne Gambie fii ak élection yi di ñëw mën nañ cee xaar ay jàmmarloo oui mais xam nga à présent bu évoluer vers ci ci ci ci élection hmm. élection bu jege dañuy def jël ay dispositions dañuy jël ay mesures yoo xam ne dafa satisfaire populaire parfois sax popu euh, mesures yooyu économiquement mënul àndul ak euh, euh, dëkk bi lu muy nuyu doxale donc mais ñoom seen réélection moo leen moo leen moo leen intéressé donc comme dañuy bëgg a nekk dañu am bëgg am beneen mandat hmm. alors dañuy jël ay dispositions yoo xam ne peut-être que ça va satisfaire l'électorat dellu si Sénégal wax ci euh, coalition yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku jamono ji waajal euh, local yi Yewwi Askan Wi euh, lan nga xalaat ci boobule coalition déjà parti politique yi nga xam ne ñoo ko formé bon je pense que coalition boobu Euh, nu mu demee la quoi euh, parce que coalition boo xam ne euh, nu ñu déparé dafa dafa dafa am benn faux pas ah. parce que c'est pas n'importe comment qu'on met en place. comme euh, étant place une coalition parce que coalition daa laaj ay waxtaan. Mhm. daa laaj ay ay ay yoon yoo xam ne ñëpp war nañu d'accord ci ci yoon boobu boobu la ñu war a vraiment suivre. Mhm. mais euh, annoncer une coalition. gaawante def euh, signature alors que réellement li ñu war a li ñu war a ci biir loolu loolu kenn waxtaanu ko ak ñeneen ñi surtout certains certains alliés ñoo xam ne mhm. ils se considèrent comme des alliés naturels du moins c'est comme des partis ancrés dans la dans dans dans dans, dans le pays donc mhm. euh, boo boo lancé noonu l'euphorie politique moo euh, boo ko boo ko suivre rek de indi problème donc mhm. loolu moo tax je pense que euh, Pastef ak tous les collaborateurs qui ont lancé ils ont fait un faux pas parce que euh, réellement amul négociation ci biir euh, parti opposition yi. ndax da nga ne dafa am ñu ci langaamu ñi nga xam ne amuñu benn base ci biir réew mi. oui am ah, loolu loolu leer na parce que fii euh, ci euh, euh, ci coalition boobu boo xoolee parce que benn parti moo am peut-être au sortir de ces élections présidentielles gis nañu Pastef moo am un certain poids électoral mm. mais boo jëlee ay Khalifa c'est des partis euh, qui sont limités des espaces bien déterminés donc par exemple région de Dakar ak mhm. environnement mais boo demee ci dëkk yi euh, ci région périphérique presque amuñu benn représentation gis nañu élection yu bëri parce que yu passé Dakar la ñuy représenté mais fale bi ñu am dara euh, dans beaucoup de bureaux zéro votant zéro votant donc parti yooyu amuñu benn base te aussi boo xoolee euh, résultat bu Pastef am du résultat am parce que gis nañu le plus grand parti ici à chaque damay ñëw deuxième par exemple comme le parti démocratique sénégalais. Mm-hmm. parti démocratique militants yu bëri soo jëlee Casamance militants yu bëri du parti démocratique ñëpp dañu wotee dañu wotee pour Sonko. Mm-hmm. et aussi boo calculer différence bu Sonko gagné euh, euh, le parti au pouvoir ci élection présidentielle nga xam ne waa PDS bu ñu jógee foofu rek ñoom ñu dem seen liste euh, ñoom Sonko mënuñu am dara donc pour nga battre la coalition Benno Bokk Yaakaar dina métti loolu moo tax il faut une grande forte coalition au sein de l'opposition pour pouvoir renverser la tendance au niveau local Et parce je... que c'est le système électoral même mooy compliqué le raw gàddu laaj c'est c'est qui met en jeu vraiment qui permet au parti au pouvoir de pouvoir gagner mm-hmm. jeexaleeg euh, coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom nag euh, ndax yaakaaroo ne tamit ci tas lañ jëm oui Benno Benno Benno Bokk Yaakaar mais je pense que euh, parti yoo xam ne ñëpp dañu arrimer ci parti ci coalition boobu. Hmm. Euh, ñoom ci euh, ci ci support ma APR la ñuy la ñuy compter parce que parti boo xam ne sinon coalition boo xam ne pàcco la coalition pàcco donc ku nekk intérêt yi nga am bëggoo ko perdre ci investiture yi dinañ yuuxu dinañ wax dara mais après ils vont se plier derrière la volonté du président. président de la République parce que derrière tout cela moom mooy diligenter les affaires et les investitures. Mhm. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Famara Sané ngay docteur en sciences politiques. merci merci beaucoup merci.